ah ñun de 2024 c'est l'année de l'indépendance parce que c'est l'année de la rupture où on saura enfin ñaata réserve d'or monnaie que tu banque française bi à notre nom où on va savoir pourquoi il euh, yenn sociétés yi duñu fay ay taxes au Sénégal mm-hmm. pourquoi euh, yenn accords yi ñu signé a Kédougou tamit sociétés yi fait exploiter or ñan ñaat ñan la ñu xam li ne ci suuf am nous ci droit ñu mën def réciprocité mm-hmm.

ñoomi neen la waaw ñoomi neen la ndax ñun nag gis nañ fi ay dossier yu ñu fi yëkkati balaa moom muy wax te mu gën a scandale fuuf mhm. six mille milliards yi bañ ko yëkkati ma nga ca biir ak yeneen yeneen dossier yoo xamante ne Ousmane Sonko ba mu ko yëkkatee teg ko ci table bi mhm. ba tey jii moom lañ ko bëgg a boddee ci élection yi muy dossier Prodac bi tey you mm-hmm. ak a dossier la fi Ousmane Sonko milliards mm-hmm. dossier c'est bien vraiment mm-hmm. euh, il faut toujours avoir une fin heureuse faut toujours avoir une fin heureuse donc euh, on attend <laughs> c'est bien que Boudem Bataille ait prise de conscience mais aussi il faut que nous politique nous nous, nous nous nous Déjà un comptable du régime pendant 11 ans ñu bëgg parce que tu as sorti des dossiers tu deviens un homme nouveau tu tu tu voilà tu t'es blanchi parce que tu dénonces euh, des dossiers euh, on se demande comment tu les as eus comment tu les as eus ces contrats mm-hmm. si tel est le cas ça va juste s'augmenter tu une indignation lu tax système de depuis ne pas dire que euh, am na lu c'est-à-dire que da ci nous rek ñun bi ni la toll mais déjà l'injustice à la corruption Nous ci 40 dossiers OFNAC Nous bi mu ne Si la toll cartable changé dara Nous, mais nous que rek ñu presse parce que Mimran euh, au-delà de l'eau, il nañ ko dégg ci qui lépp on se demande pourquoi Mimran eu le monopole du sucre depuis toutes ces années Mhm. Euh, ce sont des Sénégalais bon temps comme man qui sont dans des lobbies qui sont ici qui sont dans le système. qui sont dans le qui protègent et ces gens-là je leur dis. Ah. ressaisissez-vous Ousmane Sonko n'est pas votre ennemi Qu'est-ce que les clubs des ceci ou les clubs de cela. Hmm. nañu le candidat Ousmane Sonko est l'homme le plus ouvert d'esprit Aujourd'hui, c'est l'homme le plus malléable parce que c'est l'homme le plus clément et le plus généreux. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas parce qu'il va venir au pouvoir qu'il va aller regarder Il ne va pas les regarder dans vos, dans vos petites culottes, dans vos petits souliers, qu'est-ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'il a tenu des propos par rapport à l'homosexualité que vous devez vous en faire un ennemi. Il ne veut rien de plus que les Sénégalais il veut juste répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Si le peuple sénégalais rejette la corruption, c'est n'est pas mm. lui. Si le peuple sénégalais rejette les déviants, ce n'est pas lui. Mm-hmm. Si le peuple sénégalais veut plus de valeur, ce n'est pas lui. C'est le peuple sénégalais. Vous n'avez pas un problème avec lui. Vous avez un problème avec la société. le peuple sénégalais est le patron. Et le, voilà. Le peuple est le patron. Mm-hmm. Donc, ressaisissez-vous. Cette guerre, cette, cette, ce complot, il y a contre moi. Vous êtes tout simplement en train d'enfoncer le peuple le peuple bi xajul ci yéen parce que dëkk bi bu ngeen fi bëggee kunne di fi xej di fi def yi ngeen di def goudi di ci am jàmm ak salam da ngeen ñuy may ñu tànn ki ñu bëgg parce que man je suis convaincu man c'est Ousmane Sonko mon candidat waaw jusqu'à la proclamation des élections c'est mon candidat et je dis c'est le meilleur profil je dis c'est le profil de la réconciliation entre le nord et le sud c'est le profil de la réconciliation entre les classes division bi am liñ tek Casamance par exemple. ñaata weer nga ne Dakar dem dikk dematu fa bato dematu fa loolu yëpp ci xeex benn nit quand même. il faut que ça cesse loolu dafa ëpp nag. il faut que ça cesse. waaw mais man dama bëgg a xam nan la Benno Bokk Yaakaar di campagne Casamance. mais fu ñuy campagne ñu ngi ni parrainé wuñu ñeme wuñu parrainé du ñoom du yeneen candidat yi dañu waxante dëgg ñun on est sorti ci terrain yi. dugg ci marché yi dugg ci ruq yi ñu ñuy gàttandu du ñu tàccu du ñu taataagal mhm. du ñu joxi teraanga ñoom ñu def loolu wallay lazim wallay lazim deux xoolal ma naan deux minutes waa ji borom deux minutes yi ñoo may yóbbaale <laughs> xoolal ñemewuñu génn ci terrain bi di ci campagne ku ñe di wuti ku ñemewul ñëw ne signal ma fii simple parrain kooku ñeme ngaa dugg di campagne ndax sonkorisation bi lañu ragal sonkérisation bi la ñu ragal mais nag gis nga man je continue de dire au Sénégalais. Mhm. dëgg la joxe ngeen seen i parrain dëgg la signé ngeen. Mhm. dëgg la dëgg joxe ngeen seen koppar. Mhm. dëgg la wóolu nañ président Ousmane Sonko ba moom mi nga xam ne moom la ñu tànn ñun ñoo ko tànn moom waxu tànn leen ma de ñun ñoo ko tànn ne ko yow la. moom nee na buñ ma teree dem dinaa am ku ma tànn. waaye nag bu ñu teree tànn dem kooku. ci Sénégalais yi la des nag parce que nag ki la ne yow ki nga bëgg du falu waaye ki mu bëgg itam du falu boo ko nangoo ci yow la des